hôpital pédiatre bi di Albert Royer moo ngi dund ñàkk ndox situation bu metti lool boo xam ne personnel ba fay liggéeyee ñoo ngi koy déplorer. woon nañ autorité yëpp yëg nañ ko ñu ci def tamit ay jéego occasion la ñu sant leen ñoom ñëpp jéglu tamit personnel bi ak euh, xale yi fiy faju ak seeni waajur ñaari citerne ndox yi ñu leen di jox chaque jour doyul benn yoon tax ba personnel bi dal di jël ndox mi di ko utiliser ci li nga xam ni moo nekk priorité donc du coup dañuy prioriser fi gën a soxla ndox foofu lañ koy yóbbu euh, yi nga xam ne ñoo ñoo mën a xaar ñu xaar maanaam bu yàgg ba léegi par exemple dañu arrêté arrosage bi ñu privilégié côté soins yeeg nettoiement bi parce que. ñàkkum ndox mi tax ñu daal di tekk benn stratégie ngir mën a toppatoo malaat yi nga xam ne ñoo fa nekk. ci côté fajum xale yi tamit euh, impacté wul trop. parce que booy seet xale dem ci benn tamit mën nga utiliser solution hydroalcoolique mais léegi dafa compliqué ndax. hôpital Albert Royer di dund ñàkkuk ndox boo xam ni dara waralu ko lu dul baisse de pression mu mel ni mbir mi càmbar nañu ko ngir indi ay solution ban ñàkkum ndox bi dal di arrêté. tamit dinañ leen indil ñetti si teexnu doo yoo xam ni chaque jour nañ koy am ak tamit week-end bi ngir malaat ya fa nekk ñu man leen a jël en charge ba ñu am faj bu mucc